ñun suñu demoon ba egg fi ñu bëgg a jëm premier ministre du recevoir ambassadeur du ñu samay nawle ambassadeur Sénégal bu nekk France du gis premier ministre France ministre sax ministre affaires étrangères sax du ko gis benn conseiller euh, Cyril Ali Élysée la mën a gis wax ak moom su ngeen seetloo bi ma toogee ba léegi euh, page Facebook wala situ primature musu leen gis ñu affiché fa photo ambassadeur bu may recevoir parce que man pour man lu ordinaire la recevoir ay ambassadeur ci recevoir it sama kilifa son excellence moom moo ma recevoiral ma ambassadeur tel ma recevoir ko waaye li ma bëgg foofu rek mooy ambassadeur yi ñuy resevoir homme d'affaires yi jóge fu ne damay xey suba ba ngoon jot bés bu ne ay nit jël seen jet privé ñëw spécialement pour dajeeg ñun wax ak ñun dellu waaye li ñuy wax Sénégal vous ne savez pas ce que vous avez réalisé vous êtes une lumière pour le monde pas seulement pour l'Afrique et vous n'avez pas le droit d'échouer amuñu droit d'échouer parce que bu ñu échouer liy kase démb dama recevoir benn homme d'affaires bu mag a mag mu jóge fu sori jël jet privé ñëw ne daf may gis parce que dafa bëgg a ay investissement ak yeneen ak yeneen mu ñëw ñu toog mu wax ma benn phrase bu am solo mu ne ma est-ce que xam ngeen ni ce que vous avez réalisé est plus fort pour l'Afrique que la libération de Nelson Mandela nii la ma ko waxee kon

qui a porté le projet, qui a protégé les porteurs du projet. Il faut désormais qu'on la transforme en une énergie de construction de notre développement. C'est ça que nous attendons de vous. bu leen top seeni wax ndax ñun xam nañ ni ñu ñom opposition kérok bu ñu demee commissariat dégg na policiers yi grenade bi benn grenade lañu jël xaj ko ñent jël ci ben sànni rek ñom ñëpp a soj kon àttanuñu ko Boule. Jambar jàmbaar ngeen yéen a ëpp doole kon soxla lañ seen énergie pour la transformation de ce pays ñëpp nu mënuñoo nekk du ñëpp a mën a xëy rek c'est-à-dire fonction publique Sénégal ba mu daj boo moytul ñi fi nekk ñoo leen ëpp kon ñëpp mënuñoo xëy nekk directeur général ñëpp ñoo xëy nekk ministre mais loolu dañ leen di xas ne leen yéen a fi newoon di xeex te fàtte nañ leen déedéet déedéet ba ñuy jóg di xeex yi kenn ci ñun amuloon yaqin ni dinañu jël nguur dinañ jël pouvoir bi kenn kon dañoo xeexoon ngir dee principes des valeur te ñun ñooy àndoon xeex ngir des principes et des valeurs tey bu ñu yàlla joxee réew mi ñun ñooy ànd liggéey liggéeyal réew mi waaye kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee te la tax sénégalais jéppi ñeneen ñi war nañu moytu mu dal ñu kon saa su ñuy tànn dinañu seet ndax charte yi mat na parce que bëgg nañ kenn ku ne suñ la dénkee nga bañ ñoo gàcceel ndax moo xam leen ko de kuñ fi dénk mënoo dañ lay wàcce waaye kuñ fi dénk nga jël kaso nga jëm kon ku ñuy dénk rek bëgg nañ mu leer ni lañ lay dénk mën nga ko attan nga ko te am nga njub gi pour yor ko yorin bu gën a rafet ñi ñuy dénk it dinañ soxla ay collaborateur mais ci ñi ci ñi fi nekk lañ koy jërijee waaye li ëpp solo mooy projet de développement bi dafa am un volet citoyen sànq bi may ñëw dama waxtaan ak président Diomaye mu ne ma

di génne pneu yi loolu amul lu ko mën a lu ko mën a fay ci projet bi bu leen jàpp ni fii am na kuy nguuru de ma mag wax leen ni président Bassirou Diomaye bu nelawee par bés ñetti waxtu la nelaw ci bës bi man saa su ma xëyee yàgg naa leen wax ni politique amul lu ma ciy xaar salaire sax bëgguma ko ci lu ma musa am ci salaire delloo naa ko askan wi te noonu laa koy defaatee nii soxlawuñ ci dara lay defar réew mi moo ñu intéressé kon bu ma duggee ci suñu oto motaar yi jiitu ñaari oto ne ci benn oto ne ci kanam benn ne ci man su may xool ci vitrine bi maa ngi xool sénégalais yi maa ngi naan lan laay layoog ñi ci kanamu yàlla nag waxuma fii lan laay layoog ñi kon nañu xam ni kenn ku ne ci ñun am na. lu ne ci moom loo xam ne dañ ko donn wala dañu cee mooñaale ci niñ doon doxalee fii nañu fexe ba loolu ñu génne ko ci ñun nañ ko génne ci ñun nañu dellu si si ñu nekkoon bi ñuy ne opposition bi nit ñi di génn di xeex amul kenn ku ñu jox post walla dërëm wala ñu digla waaye dañoo gëmoon ni lii mooy soppi Sénégal est-ce que dinañ ñëw tey ba ñu dénk ñu nit ñi di teggi seen tànk parce que joxuñu ma lii wala seet si ma wala woowuñu ma wala wala wala est-ce que loolu di ngeen ko def yéen kon l'action citoyenne est le fondement et la base de la réussite de notre projet moo tax son excellence président Diomaye daf ma delloo dafa nangu ci madame nangu ko sax dafa jëlee ci madame le ministre de la jeunesse lii nga xam ne mooy le service civique national et le volontariat je ma sais man primature parce que man ak ni terrain man ak terrain bi la ko organiser soyez des volontaires de votre patrie soyez votre des volontaires de votre propre développement Ñong ko def ak barki amuñu moyen def vacances agricoles patriotiques de sang def nañ fi ay euh, activité di nettoyer cimetières yeeg écoles yi bi paa nag dañ ci lënkalook armée nationale lënkaloo ceeg les entreprises ñu génne seen matériel lënkaloo ceeg budget bi nga xam ne état bi na ci génne gis ngeen vacances yi man ak yéen ak président Diomaye ak